sell buy pay borrow lend jaay jënd fay abbu able ok ñu jéem a def pratique nag ci jaay jënd can I help you can help you can help you mooy lam nga bëggoon lu jara leeral bu dul ci jaay wala ci jand wala ci tegtal nit dara can help you ci anglais mooy firi mat ndax mën naa la dimbale dégg nga maanaam can help you ndax mën naa la dimbale lay tekki bu ma ne I can help you mooy mën naa la dimbale you can help me mooy yow mën nga ma dimbali bu ma ne nag can help you mooy ndax mën naa laa dimbale nee naa la bu dul jaay wala ci leneen daje nga ne ma yes you can help me waaw mën nga ma dimbale mais bu dee jaay buñ ne can help you mooy loo bëggoon ndax buñ ne la can help you rek da ngay wax li nga bëgg moo tax I need some clothes. I need some clothes. ay yére laa soxla woon soxla mooy nit want mooy bëgg moom ak like love mooy bëgg ak nopp ay nit mooy dama soxla nit nag moo gën a dëgër ay want bu fekkee da nga ne I need something to do uh, comme ne I need some money mooy dama soxla xaalis loolu dama ko soxla bokkut ak ay want dama ko bëgg rek donc su ma amul li ma soxla mën na maa am problème yes come inside the shop waaw come inside the shop inside inside kaay si biir bitig bi come inside the shop kaay si biir bitig bi donc ayam am inside mooy maa ngi ci biir I'm going outside mooy maa ngi dem ci biti bon come inside the shop mooy kaay ci biir bitig bi come outside mooy génn kon ci biti dégg next to the shop mooy ci pegg bitig bi in front of the shop mooy ci kanam bitig bi behind the shop mooy ci ginnaaw bitig bi ok come mooy ñëw come inside inside mooy ci biir outside mooy ci biti come inside the shop kaay ci biir bitik bi ma wan la look here are the clothes look here are the clothes baatu here look mooy xoolal here are buñ ko waxee ci anglais rek mooy moo ngi nii wala here you are bu fekkee dama lay jox sa téléphone bi damay téye téléphone na la here you are na la moo ngi nii loolu lay tekki wala ma ne la here it is bu ma nee na xoolal here are the closest mooy here yaa ngi nii te pourtant here rek li muy tekki mooy fii there mooy tekki fële mais ci beneen waxin day tekki bu ne here you are mooy moo ngi nii buñ ne here are my friends mooy samay xarit yaa ngi nii ok xoolal yëre yaa ngi nii léegi kii yee I have ok nga ne I have jeans am na jean am naa ko I have skirts am na skirt muy sippo dégg nga I have jacket xool am na jacket I have jacket I have raincoat raincoat mooy jacket boo xam ne pour buy taw la I have denim shorts I have denim shorts dégg I have denim skirt gis nga denim skirt I have fleece jacket I have fleece jacket mooy am naa fleece jacket I have pyjamas I have pyjamas ba léegi gis nga I have waistcoat I have waistcoat dégg nga I have t-shirt I have t-shirt gis nga ngay lim I have hoodie li nga am rek dégg nga waaw you have everything waaw you have everything waaw ah yow am nga lépp you have everything bu ñu waxee everything mooy lépp boo no one knows everything except Almighty God kenn xamul lépp ku dul yàlla donc everything everything everything yow kay am nga lépp waa léegi sax how much is this denim shirt how much is this denim shirt waaw tubay bi moom ñaata lay jar sax ñaata lay jar loolu mu si jublu mooy yow yaay xam bi nga bëgg jënd bu boobaa boo ko jëlee boobu ngay wax ne moom ñaata lay jar mooy how much is it xam nga mooy lii ñaata loolu ñaata lay jar boo ne how much is this mooy lii ma yore nii ñaata lay jar ok how much is this denim shirt bi moom sax ñaata lay jar ok mooy tubay bi moom ñaata lay jar ok how much is this how much dafa bari ay ay ay jëfandikookaay waxoon naa ko ci benn vidéo how are you mooy naga def mais bu ne how much mooy ñaata lay jar bu ñu ne how many mooy ñaata la ci bëriwaay comme ma ne how many friends do you have ñaata xarit nga am it costs it costs two wala it costs mooy ngi jar mi ngi jar deux mille francs laa koy jaay mooy moo ngi jar costs cost nag moom irrégulier verbe la boo xam ne dara du sens moom cost cost cost si trois temps yëpp ok it costs mooy mooy moo ngi jar léegi nga place nag price bi mooy prix bi li nga wax ne lay jar comme it cost two thousand it cost one thousand it cost fifty hundred if it cost one million one billion yaa xam li muy jar. hmm that's expensive that's expensive mooy loolu loolu moom cher na di that's expensive wala nga ne it's expensive. dafa seer loolu moom njëg gi daa yokk wala ndaat cheap mooy dafa yomb léegi bu ñu la waxee prix boo xam ne dafa seer ak yow maanaam dafa <clears throat> mënoo ko fay prix bi nga bëgg a woo nii nga koy duggee man ko wax mooy what about ba pare place ko exemple boo nee ma fayal 2000 ma bëgg a proposé ci 1500 dama naan what about 100 and 500. What about 1500 dégg what about what about waa loolu nag maanaam 1500 nag waa nag what about dégg mooy booy proposé ak prix bu ñu dajoon boo ne ma how are you ma ne la am fine wala am not fine bu ma ne la what about you mooy yow tamit nag dégg yow tamit nag daa mel dama ne la yow it how are kon what about loolu lay tekki wala mën na tekki